arbitre ngi laaj ñaari mbëri ndax pare nañu nee nañu waaw arbitre sifla ci diggante Tidiane Faye numéro 2 bu écrit Jali Birama Thior fils de Yékini écrit Père Diaw fils de Yékini Diaw kaas na moo féete suñu ndeyjoor Tidiane Faye numéro 2 moo féete suñu càmmoñ jël na tànk ba jël na tànk ba waaw waaw xajul ci ay yel xajul ci yel Tidiane Faye numéro 2 daan na ponkal xajul ci ayel Tidiane Faye numéro 2 daan na sëñ Modou maa ngi lay ziar soxna Fatim maa ngi lay delloo ziar di am nañ mbégte lool ci ndax yow xam naa ni dooma sax déglu waaye yow sama émission yow laay tijjee yow laay tëjee bañ naa ko ba léegi nit ñi ku woote dañ naan ma ah birima ba ca benn baat ba bu waxee ren balaay waxati déwén man leen koo koy sëñ Modou Niang dëgg la dëgg la dëgg la mais nag am nañ mbégte loolu it ñoo ngi koy rafetlu ñoo ngi koy yëgit ñoo ngi koy sentir bu baax xam nañu ne yow li ngay def ci làmb da koy def rek te yàlla tax loolu xam nañ ko bu baax ñoo ngi la ciy sant di la ci gërëm di ñaan yàlla yàggal la sa pos te la ci ay xéewal Euh, ñu gis nag tey nga ubbee euh, li nga xam ne nii rek moom mooy euh, moom mooy Ndiaga Dolé ak ki nga xam ne ni moom mooy Ibou Ndapha numéro 2. waaw boobu moom la ñu tey saison bi tey fii ci Ndakaaru mu diggante Ndiaga Dolé ak Ibou Ndapha numéro 2 muy cinquième édition drapeau soxna na fi Fallou Fall donc loolu dañ ko ubbee pour que war nit ñi ne ñëw nañu et que incha allah chaque quinze jours. fas nañ yéene jël benn làmb bu am solo tegal ko amateur yi. Euh, jërëjëf sëñ Modou mais man dama doon wax sax sëñ Modou man gis naa làmb mu ubbi ko ci mois de octobre le 2 tey ñu dem ba mois de décembre ba mois de janvier lan la. waaw loolu nag xam naa ne ay réglage la woon rek parce que ñun pare woon nañu depuis octobre mais xam nga ne mutation yi doon am ci làmb ji ak euh, li nga xam ne moom lañ ci doon defaraat diggante Ibamar ak arène nationale bi. moo waral loolu waaye ñun pare nañu toujours saa bu ñu tëjee rek juillet pare nañu pour octobre ñu ubbi. Euh, jërëjëf mais nag ñu dégg tamit ni yaa ngi jëm fee ca arène nationale ba. waaw le 26 arène nationale lañ jëm diggante Ibou Senghor numéro de ak Malem Niani noonu lañ ko bëgg a def rek alterner suñu tëggee fii tëgg fële ba keroog nag ñuy tuxu nag carrément jëm arène. mais ba tey yaa ngi ci li nga waxoon chaque 15 jours nga tëgg làmb. chaque 15 jours am nañ làmb tey jii am nañ làmb le 26 am nañ làmb le 9 février am nañ làmb incha allah. jërëjëf sëñ Modou. sama góor maa ngi lay delloo ziar waaw sant yàlla rek. xam nga mbir boo ci nekkee mu tëj yàlla def mu ubbiwaat loolu dolli sant yàlla la sëñ Modou ñaa mu ubbi tey sii di ubbi na semaine bële passé Thiès. waaw fas yéene rek dugg ci biir saison bi ñaan yàlla ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim yeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin rek yàlla dolli jàmm ak fekke ak tal ñu gis tamit làmb daan ubbi ci mois d' octobre sax man gisoon naa làmb ubbi ci mois d' octobre tey ñu dem ba janvier lan ma waral waaw li ko waral euh, umpul kenn ay coow yu fi amoon lépp pour defar rek la mais alhamdulilah rabbil alamin toog nañu. jël ay assises toog waxtaan ci lépp pour làmb gën a jëm kanam lépp pour gën a defar donc loolu sant yàlla la. yow nga jëm nag léegi ci diggante Garga Mbossé ak Moussa Ndoye muy combat boo xam ne nii ñëpp dañ ni ba Abdou Fall sax bi xalaat nan la ko ah, nan la ko amee. waaw sant yàlla Garga Moussa Ndoye ñoom ñaar ñëpp dañoo bokkoon ay adversaire ku nekk daan ku nekk daan nga Tonnerre daan nga Lac donc yoon la. ñu daje incha allahu fas yéene nañu bu élection yi jàllee ñu daal di daje lamb lépp rek pour contribuer ci bonne marche saison bi lamb gën jëm kanam daal. mais yaa ci yeneen combat. incha allahu rabbi xam nga man nag wax ju bari dama ko mënul damay bàyyi rek affaire yi ñëw naturellement et puis lamb moo ciy gagné. mais kontaan naa ci waaw bëggee naa jërëjëf. ci diggante Boy Notaire ak Nokia booy Notaire moo ngem boo ngem lu bula Nokia moo ngem boo ngem lu xonq li ndeysaan arbitre laaj na leen ndax pare nañu nee nañu waaw ndeysaan arbitre sifflé na Nokia moo ngem boo ngem lu xonq ndeysaan écrit Thiaroye 44 Boy Notaire écrit Ndiaga Sarr booy notaire ngi dire ku nànk jëm ci jëm ci Nokia booy notaire ak ndeysaan booy notaire écrit Ndiaga Sarr Nokia écrit Thiaroye 44 Nokia moo ngem boo ngem lu xonq booy notaire moo ngem boo ngem lu bleu ndeysaan booy notaire dagg na léewtoo bi léewtoo bu diib kew e, kurpeñ dalagul Nokia cokkaas na léegi eh, oh la la Nokia Nokia dugal na perkil bu dal booy notaire daw na song ko Nokia Nokia koy kal. Boy Notaire ndeysaan ak Nokia Boy Notaire Nokia sama góor ziar naa la namm naa la Pape Baye maa ngi lay ziar fi la ëppee sama xarit maa ngi lay ziar waaw sama soppe bi lay la ëppee maa ngi lay balu àq ndeysaan maa ngi koy maa ngi koy diggante booy ah, boobu booy notaire ak ak na dox booy ñaa dëgg moom la ñaan booy ñaa léegi nag tey dafa changé ñibbi koñom ah. notaire ga mu dëkk ah, notaire ga mu dëkk boppam léegi waa ndox teera ah dafa am nañu am waaw dafa jóge battu ca ndaala te combat bi day metti ndax dafa jóge ci défaite bi mooy deuxième combat am. waaye tax ma bëgg waay. ah, ah sama ah, Pambaay booy notaire ndeysaan booy notaire ak Nokia booy notaire ah moo la woon ginnaaw moo ngeen boo ngeen bul ñaari mbër yaa ngi gemboo ni Boy Notaire Boy Notaire Boy noteer doon na ko galgal noko yaa yëkkati na ko laa ilaha galgal daan na ko daan na ko na ko daan ko daan na ko Nokia bu Caaroy e 44 daan na booy notaire bu écrit Ndiaga Sarr ndeysaan xam ngeen booy notaire booy notaire nag dafa jógee ci defet dellusiwaat tey jii am am defet waaye bëre na lii la ci def bu bees at la ñu génn dugg ci at 18 dem 19 yàlla na nu yàlla may ñu fekkee ko nii kenn ku ci nekk yokk parce que il est temps nag télévision yi gën a bëri rajo yi gën a bëri site yi gën a bëri parce que borom bi gu mbagg boo gis boo xaree xol bi sit bu rëy nga ci fekk te mënuñu di wéeru rek pendant ay vingt ans ñuy wéeru rek il est temps yàlla na nu yàlla may suñu yëfu bopp ñun ñëpp. ci barke yonent bi te mu jig ñu ci atum 2019 parce que li Youssou bëgg man dama ko war a bëgg li Bougane bëgg da ko war a bëgg yow sa patron li mu bëgg da nga ko war a bëgg il faut Pape Thialis il faut être ambitieux dans la vie te ambition mooy jëmale nit kanam te yal na nu yàlla may ambition yu dëgër ñun lan lañu amatu lu ñuy wane basta waaw jaajëf soxna Fatim ñu ngi lay fay bu baax a baax. Euh, tey jii di premier euh, première journée fii à Dakar da xam nga Sidi Diakhaté sax moom ubbi na fële ca Thiès mais fii tey doon première journée tey lan ngay wax. waaw non tàmm nañ ko sëñ Modou Niang suñu papa suñu mag suñu lépp di ubbi chaque année ñëw comme ni mu ko doon rek comme chaque bu ubbi dañuy teew moo tax ren ñu ñëwaat teew vraiment ñu gis ne ren am na amélioration bu baax a baax ndax gis nañ isaat bi vraiment gis nañ kon dañuy am mbégte rek soxna Fatim di am contentement bu baax de xam ne làmb jàpp nañ ne ca kanam la jëm daal. Eh, mais mais mais Fallou yow yow yaa ngi jëm kañ. waaw man maa ngi jëm incha allah vingt 27 janvier fële ci Guédiawaye arène nationale bu neexee yàlla. mais Fallou kon arène nationale yaa koy ubbi. waaw bëgg nañ ko ñu ngi jiim nag yaakaar naa am nañu fa woo dëgg avant boobu mais ndax su ma juumul am la 20 ak le 26 am na. après incha allah ñun ñoo ci topp bu neexee yàlla. nga topp ci le 27 bi dox ci diggante kan ak kan. Ramdan Pambaay. Ramdan eh, mais mais Ramdan tukki loolu moom ay wax. remplacer le combat bi. ay wax la rek mais yaakaar naa le 27 des na tey pour ñu commencé ay promotion des na tuuti ay 5 jours 6 jours kon yaakaar nañ ne ba ay xalaat nañ ne war naa mën a bëre en même temps jël nañ document boobu jébbal ko CNG. kon kon yëg nga ni tukki na. ba pare jébbal nañ bi CNG. di xaar CNG xam lan lay wax. bokk ci yow mais maa ngi lay ziar di di yeesalaat sama cofeel ak sama mbëggeel ci yow. maa ngi lay delloo ziar di yeesal ma ne sama cofeel ak sama mbëggeel ci yow di kontaan ci yow lool waaye di kontaan ci bés bi tamit waaw. cinquième du ay caaxaan. déedéet du lu ndaw du ay caaxaan te du lu ñuy forcer. waaw ma kontaan ci loolu wax dëgg yàlla di sant sama càmmiñ bi sëñ Modou ndax suñu ànd tamit day lu nekk loo xam ne dëgg la ma di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér di ko ñaanal sama bopp ndax lii rek dëgg la ñun mu nekk ma nekk sponsor am te social moo tax ñu xamante te tey boo duggee ci làmb ba nekk sponsor yàlla ak jëmm ji la kon aw ma fayagum def ma tamit lu dul di kontaan di bég waaye yéen tamit di leen sant di leen gërëm ku mel ni yow mi nga xam ne dama la ko déjee sa yéene ak sa bëgg-bëgg ci man xam naa ko te yëguma ci dara waaye àllarba émission bi yow laa ko jagleel wóor na Seydina mu xam maa ngi lay sant baa baax jërëjëf fa ñëw bu soobee ci sama soweta sama xarit maa ngi lay siyaar ah, waaw ñoo ngi xam nga ni man dama la bëgg non ñoo raw ñoo la raw dëgg la ñoo la raw. yow moom dama la boole ci sama. ay partenaire lañu macha allah bëgg nañ lool ci journée. mais macha allah maa ngi wax léegi soxna ci ma ne ko cinquième édition du ay jaax. no loolu moom macha allah su ren ñooy bi saison bi bëgg rek macha allah dëgg la. jërëjëf jërëjëf. waaye maa ngi lay sant bu baax a waaw di la gërëm di la sant. di rafetlu nag tànk yi nga fi ñëwee daal tey moom euh, dafa am sa benn problème boo xam ne yàlla dafa def dafay jaga yàgg ak moom muy Ibou Ndapa 2 yàlla def tey muy bëre nga ñëw su fekkee lamb ji tey loo loo gis si lambam bi tey waaye ubu ubu ah. dafa nekk sama doom nekk sama garde corps ku ma déggal la nag moo tax bés bii mu nekk sama bés moo tax ma ñëw teew si si lamba ji waaw waaw sëñ Dame li rafet li ngay def fële bar ñi ñëpp a ngi si teg loxo bët di ko gis comme nag ak at yu baax yooyu jumaa yi yaa ngi si jumaa yi comme nag at yëpp yaa ngi si ñun da lay ñaanal yàlla nga yàgg fi jóg tànd ak wér dégg nga ak ki ngay sa leader bi nga xam ne moom ngay jàppale Jax production aussi kooku tamit tuddee woon na la fi làmb nga ñëw def tamit ne rey tamit ngi préparé deuxième édition bi tamit loo si gis waaw xamoo moom laa ko waaye promoteur yëpp samay promoteur lañ ah, ah. mbër yëpp tamit samay samay mbër la ah. euh, léegi ma wax ni sawar naa si tontu mooy président Macky Sall mu ngi liggéey ci Sénégal ñëpp gis nañ seen bopp seen bët moo tax ma di ko jàppale fépp nag lu may def rek baa ngi jàppale président Macky Sall di jàppale jeunesse bi di jàppale maire yi dañuy joxe ay financement du toppatooy xëy pour jeunesse bi amam xëy si loolu la nekk ma amoon bés boo xam ne nag sama mouvement lu 20 laa koy lancé bar ñi bëgg naa ñëpp teew évité naa se bëgg naa sax nga ñëw sa jaajëf merci jërëjëf waay jërëjëf yi daal yi production mooy ñi ngi production no mi ngi jëm si denn date bu doy waar muy le 12 janvier le 10 janvier incha allah fii si stade Iba Mar date boobu yi noonu ngeen ko préparé. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonente bi di sant suñu ñaari waajur di ñaanal sëñ Abdou Karim Mbacke mu yàgg fi di wér di ñaanal Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane waa këram ñëpp di nuyu waa station réseau amateur ñëpp. di nuyu ñi waa ñi production daal di wax ne ñi koy waaj. di wax ne suñu na ci réussite total daal waaw. waaye daal boobu mooy sa première tey amateur yi tey loo leen dig bu boobaa bu ñëwee si lamb ji lan lañ fay fek incha allah. waaw ñu ngi leen wax ne ay amateur lan te tam euh, lamb bi amateur la leen uh-huh. grand bi mi ngi dox ci Bawol 2 ak Albarka Kayre. Uh-huh. Euh, beneen combat bi ci Dame Souguer ak Fourrière bu Grand Yoff. te ku ne xam ne ñooñu ay champion lañ. Oh. beneen bi ci topp Ama bu Malika ak Ndiol Jamono ñu ko sama xarit bi Modou Baye Fall nga xam ne ci station de seen amateur la bokk. loolu tax tooguma la. mais gis nga combat yi nga teg mooy combat espoir ku la diis incha allah di nga gis làmb parce que ñi ñëpp xam na leen. ay wax daal di woo appel ñëpp. di wax ne waa làmb nañu ñaanal rawatina sama mbokk bool bool yi di wax ne sëñ Abdou Karim Mbacke daal maa ngi ko gën a tàllal loxo yi di yeesluwaat bu baax a baax mu ñaanal ñu bis bii la diis suñu borom defal na ci réussite daal loolu la ñuy ñaan nag. jërëjëf salaamaaleykum mbokku internet yi muy suñu TV ñu ngi ki naan Abdoulaye Ndiaye ñëpp xam nañ ko si làmb tey ji man bu ma neexee mun naa ne moom mooy làmb waaw maa ngi toog moom waa sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar di la fay bëgg fàllu uh-huh. di la wax bisimilah dalal jàmm. Uh-huh. suñu TV di ko dalal jàmm ci làmb ji. Uh-huh. ndax yëf yi yaat na te ku nekk ku ci nekk am nga ci place. waaw di la laaj làmb ji yéen seen date bi ndax yéen yéen a koy waajal. waa ñu ngi waaj d'ailleurs le 20 ñi ngi war a dem arène nationale. mais confirmation la ñuy xaar d'ailleurs demee dinañ dem ministère. 10 heures di matin pour vérifier ko xool ña nga fay am le vin diggante Tigo ak ki nga xamante ni mooy Pape Thiam diggante Bébé Garga ak Thiat bu wallo Paul bu Daaru ak ki nga xamante ni mooy euh, Paul bu Daaru ak ki xam ne mooy Bulldozer et tant d'autres Gibson Production dana ñëw le 26 ak Bébé Ama bi nga xamante ni moo nekk équipe Pikine mbooloo moom aussi mu war a bëri ak nga xam ne mooy sangu suul bu Kër Massar waaw Cheikh bi lamb yi nga tudd fii yëpp yëpp doy waar. parce que bu naan ne yaay lamb. waaw non xam nga boo déggee ma ne duñ ko ah, nangu. Ah, ah, bàyyi ñu doon dong rek am na dañu ci yàlla séddee. waaye bàyyi ñu raam rek. di nuyu moo nami et frère Gibson production. ak sama rakk ji Matar ñu ngi à côté toog. vraiment di wax ne lamb daal. famille la. nañ def jàmm rek. yéenante jàmm rek bu ko defee yàlla jàppale ñu. ñu lay sant la gërëm. kontaan nañ ci yow les fatigables bëgg Fallou les fatigables. waa ji bi waa jibi sa journée mun nga ñu ko fàttali kañ ngay njëkk sa première journée kañ la. sama première journée mi ngi nekk le 25 euh, janvier. Ah. stade Iba Mar Diop. Ah. mi ngi nekk drapeau Papa Boy Djiné. Ah. Papa Yadou. mais Papa Boy Djiné dafa blessé. andil ma certificat médical. ci kanam Abdoulahad Ndiaye. ma remplacé ko. def bébé ama. ak sang sol. ci oh, kàddu combat bu doy waar nga fa tëgg. ñaari combat espoir yu doy waar la. ba ma ca jógee ma taftal ci ah, George Bush ak Agago ah, drapeau pap papa doomu Moustapha Cissé Pablo doomu Moustapha Cissé Lo ah, benn bi drapeau si Dia mooy drapeau bu mag ba nu koy préparer le vingt janvier ci incha allah fii ci stade Iba Mar nu uh-huh. ci ànd ak Abdoulaye Ndiaye suñu doomu ndey nga xam ne ku mu nekk ci sa ginnaaw doo ragal dara loolu lépp ginnaaw yàlla moom moo moom ku mu jiital doo ragal wallaay doo ragal doo am lenn looy ragal <laughs> turóon ci ko turóondoom la jël <laughs> xam nga rek dafa tëggu gaynde la gaynde Cheikh Abdoulaye la <laughs> jàmbaari lislaam ji moom nag moom mu doon jàmbaari làmb ji waaw mooy jàmbaar gaa yi nangu nag moom affaire yi moom la jërëjëf Abooy gaay baax droit énergie ak abooy bu écrit kay baax bëgg ñaari mbër yaa ngi léewtoo waaw Fatim combat bu gaaw lay doon parce que Pape Socé moo ñu woon ginnaaw abooy moo ñu kanam ñaari mbër yoo xam ne ay mbërantaan luñu Fatim Fatim combat bi benn song lay doon rek bu ñu jàppante rek Fatim mu waaw parce que ñaari la dégg la naan combat bi benn combat du non combat bi mooy mooy combat bi même sax combat bee ko ndax songo nañu ñaari mbër yi songo nañu ndeysaan Pape Socé ak Aboy Aboy jàppul waaye Pape Socé ñaari loxoom a ngi ci ngemb ba mu dëgg waaw dafa jàpp ba xañ ko mu jàpp waaw Aboy jàpp na Fatim waaw xam nga loolu la Birahim Ndiaye di wax ni mbër day mën a rasu waaw fu tax Aboy jàpp na Fatim Aboy jàpp na mais nag damay ragal bu jàppee bu baax ak son lamb ji jeex parce que ñaari bërëkat la Fatim. waaw ndax Pape Socé ngi yóotu. mais jàpp bi mu bëgg a jàpp jàppagu ko. waaw Pape Socé boobu baa ngi ko ndengee. waaw aboo gi def Pape Socé doon na mboot mais aboo daf ko jéggi. laa ilaha illallah. ko jéggi mboot. waaw. boole ko jéggi. waaw waaw da koo jéggi. ñaari bërëkat lañ boole combat bi ñaari waaw. ndeysaan Pape Socé écrit Rock Énergie aboy ah écrit kaay baax ñaari mbër yaa ngi leew too kurpeñ dalagul aboy ah moo ñu féete suñu ndeyjoor Pape Socé féete suñu càmmoñ ndeysaan ñaari mbër yaa ngi damante baaraam aboy ah sànni na Pape Socé waaye dalul ñaari mbër yi songoon nañu waaye dañu songoo ca kaw. waaw dañ jàppante Fatim si kaw. mais sa waay nga koy sol aboo nga koy bëgg sol. koy añ mais mu koy añ. kal na ko ma koy kalkal. laa ilaha illallah Fatim ñaari bërëkat la. laa ilaha na. Aboy cokkaas na Aboy cokkaas na Pape Socé moo ñëwoon ginnaaw ndeysaan ñaari mbër yaa ngi damantey baanaam Fatim Abo solaat na ko Abo solaat na ko takk na ko Fatim frakk na ko Fatim takk arbitre génn nañu saako yi génn nañu saako yi Pape Socé dafa yi Khadim day jël avertissement Pape day jël avertissement. ah moo ah, ah du dañu ko puusu ñu ko mu génn moo génne boppam waaw kon day am avertissement. Fatima. foofa moom moo diriger combat bi. waaw abo mooy diriger mooy Pape Socé. bu doon ko dox su ko Pape Socé. Pape Socé moom lay def. Fatim ñaari bërëkat lañ boole combat bi mooy dàq grand combat bi même combat waaw parce que ñaari bërëkat lañ boole ñoom ñaar. jërëjëf bëgg Fallou Pape Socé ak Aboy Pape Socé roog énergie Aboy écrit. Kay baax Kay baax. Uh-huh. ndeysaan Aboy ah, waaw wéyale na ko ah munoo daanu daaneel. am na li nga indi xoolal li xale bi indi ama xoolal li xale bi indi Fatim li xale indi waaw Fatim gis nga ko gis mi ngi dëkk ñangal benn dëkk bi naan ñangal fala awoo bi jóge Fatim car macha indi na si indi mbooloo bëri na daan na bi daan na daan bi daan lay la laa aboobu kay baax moo daan Pape Socé bu Rock Énergie baaxum baaxum yaa ngi si suñu TV yaa ngi si Tunish TV maa ngi lay nuyu di la sant di la sant di la gërëm di la laaj mbër mbër guddi ñu toll nii gars soxla nañ ko bëgg nañ combat am mbër si li mu ne. waaw jërëjëf bëgg fallu maa ngi lay fay bu baax di nuyu yi di nuyu auditeurs yi di nuyu itam ak lu làmb ndax nii ñu def tey. wax dëgg yàlla namoon nañu ko muy ndax làmb tëj mais ñoo ngi gërëm baax sëñ Modou mi nga xam ne euh, chaque euh, ane ci kàttanu yàlla mu ubbi làmb ci te bu ko rek jàmmam waaye daal li mën a mën a xamal mooy mbër moom bëri rek la moom moomu ngeen di wax noonu moo leen yàkkamti gën a bëri gën leen a yàkkamti am combat mais nag bëri ñaara koy def la plupart ay adversaire am tànnoon na ko bu yàgg adversaire yi mu tànnoon tam xëy na ñoom ñooy dem ba ci biir xëy na duñu bëgg a bëri moom xam ma lu muy niru. mais moo Gris Bordeaux gars yi ñu ngi si doon wax fu tollu toll combat boobu. waaw Gris moom xañ na daa wóolagul boppam rek xañ na courant bee ko bàyyeegul ba léegi moo tax wóolagul waaye daal li ma mën a jàpp daal mooy euh, ñun ñoo ngi toog di xaar ma moom. soxla naa ñaar ku ci ñëw baax na. waaw incha allah waaw loolu yow ay combat nga ma wax. waaw loolu ci biir li am la treize yow loo gis combat boobu. ah combat njëriñam nga nga ma laaj. Euh. ndax ki di Balla gay mbër la moo xam ne bi mooy gaynde gaynde Géejawaay kee ñu tudd ko xarañ loo nga xam ne mën naa ne ci biir bërëm moo ko moo ko war a waaye dudd loola tudd mais bu demee ba naa ko xarañ loo tey ji yàlla mën naa dogal ci kattanu yàlla mën nañ ne képp kuy lim tey ci mbër yi yi yi dàq bëri ci làmb ji da ko ci boole. muy loo xam ne lii combat boo xam ne bi yaakaar naa ne incha allah man séntu naa ne sax xëy na ñu xeex waaye xeex bu du bëri ragal naa bëri moo ëpp ba xeex bi. jërëjëf le grand ménageur. merci beaucoup. ndeysaan ndeysaan ci diggante Calcio ak Albouri Albouri kay baax Calcio Kër Massar mbooloo ndeysaan waa ngi toog soxna fi Fallou Fall ngi noonu ndeysaan Gilles Mbengue ngi noonu laa ilaaha illallaah cinquième édition drapeau soxna na Fallou Kal ñaari mbëri songoon nañu Calcio moo ngem boo ngem lu weex Albouri moo ngem boo ngem bu wiisi bi <coughs> Calcio moo ñëwoon bu Calcio di jël sa loxo daanu bu Calcio di jël sa loxo ngay daanu laa ilaha illallah ajo <laughs> non Albouri Calcio Calcio Kër Massar mbooloo na ndaysaana Alboury Alboury écrit kaay baax Alboury jógal li nga def warut Alboury Alboury jógal li nga def warut ay ñaari xale yaa ngi bëre suuf waay ñaari xale yaa ngi bëre suuf waay la ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah bi mooy combat spécial bi ndeysaan moo dox ci diggante Calcio bu écrit Kër Massar Bolo Alboury écrit Kay Baax ndeysaan ñaari mbër yi jege nañu saaku yi jege nañu saaku yi ñu ngi ci suuf ñu ngi ci suuf jogaat nañu eh, eh. non cal ak Albouri ndeysaan combat spécial ñu jëm nag ci grand combat bi ndeysaan dox ci diggante Ndiaga Dolé ak Ibou Ndapa numéro 2 bu écrit kay baax Ndiaga Dolé écrit Ndiaga Sarr Albouri ngi cokkaas nank ci suuf Baye Demba si mbër yee ko moom sama yang danga ndeysaan ñaari mbër yaa ngi ni teg Alboury doon na ko xar waaye ndeysaan Calcio Alboury la ak Kalso combat bu neex la Fatim. parce que Alboury gis nga li mu def nii moom noonu la mu ne day jàpp sengam ba pare la gis nga de da koy faxat mais nag non njool doo ko def nii Fatim Fatim ku la ëpp ni mu def jaay na ko aa ah, ah Fatim njool bee ko Fatim njool njool Fatim li mu def nii Fatim njool ku la ëpp las ko def nii Fatim sa waay ko prolonge waaw sa waay ko prolonge li mu def nii risque la Fatim. risque la mais génnaat na ndeysaan calcio bu Kër Massar mbooloo ndeysaan Alboury écrit kay baax ndeysaan ñaari mbër yaa ngi ni tek ndeysaan ci bisu Ibou Ndapa numéro 2 ak Njaga Doole ndeysaan Demba Andega. Huh? lay ñaari xale yaa ngi bëre calcio na ca non calcio bi <laughs> xalaat na ko xalaat na ko laa la illallah Alboury tante leneen Alboury tante leneen calcio jógal Alboury calcio laa <laughs> ilaha illallah laa ilaha illallah non Bonifacio Fallou Kalso ah, waaye Alboury waay Léegi ma jaay Dakar macha waaw di sant yàlla rek voilà boo xoolee chaque année ñëpp dañuy xaar ci ouverture saison te yàlla ngi ciy suturaal saa bu ñu ko defee mu réussir Sénégal ñëw voilà presse bi tamit kenn du des vraiment ñu ngi bëgg ci loolu bu baax a baax. mais man may wax ni gis naa sa sëñ Modou daan ubbi le mois d' octobre tey ñu dem ba janvier lan moom moo ko waral. waaw loolu ci tardement bi ci côté saison bi bi muy tijji la mais ñun moom on toujours prêt vraiment waxee ni saison bi tijji na daanaka semaine bi si topp dañuy ubbi donc ñi ngi pare aussi sunu prochaine journée le 26 incha allah ci diggante Malam Ñaani ak Ibou Senghor numéro 2 ñu koy defee ci arène nationale bi incha allah. arène nationale ngeen jëm. waaw fa lañ jëm mais Ndiaga kon yéen yéenay yéen yéenay ubbi yéen arène nationale. voilà c' est ça xam nga arène bi moom daanaka ñun lañ ko tijjil parce que boo xoolee sunu kër même pas 50 mètres da ngay egg ci arène bi donc euh, loolu sunu yëf la te bu soobee yàlla. dinañ ci ñëw ak doole dinañ. xam mais mais yow li ci promoteur yi di wax yow gisoo ko ci de. non man gisuma ko ci parce que vraiment lamb moom affaire bu civilisé la boo xoolee démb dîner de gala yeeg bagage yooyu ngay xam ni. xool xool tey xool tay ne ça. c'est ça zéro violence. football bi moo ëpp violence fuuf voilà mais lamb moom dafa ànd ak coow loolu moom nature la mais sant yàlla rek yàlla ñu yàlla. mais Ndiaga dama lay invité suba Atlantique FM. waaw defal loolu ma pare naa bare naa ñoo far. comme Amaneex. waaleykum salaam. waaw maa ngi tàggoo le grand champion muy Amaneex bi nga xam ne sa waay euh, tey ji mun na ne mooy Balla Gaye yu mooy Modou Lo yu Tëngéej Amaneex tay amateur yi nam nañ sax combat lu ko téye. waaw sant yàlla rek julli si yonente bi salaahu alayhi salaam sant suñu ñaar waajur eh nun moom ay jaam rek la dañuy sabablu di ñaan suñu borom rek saay bu suñu borom dogalee rek ñu xam ne kat lii moom la suñu borom dogal hmm. mais nu ngi daal hmm. xëy na peut-être si amoo euh, euh, xëy na peut-être daa jotagul rek mais bu jotee rek yomb. waaw kon yàlla na jot si barke Seydina Mouhamad. amiin mais bëgg aussi non Fallou borom neex <laughs> Sa Thiès amateur yi ko soxla. waaw loolu bu Sa Thiès neex na ah. uh-huh. waaw macha allah waaw. waaw Sallou nee na bu ah Sa Thiès moom neex na te combat ba pare na pour teg ko mais yow Balla Gaye Modou Lo ama neex. làmb la ku yeboo teesi. Hmm. làmb daal ku yeboo teesi. Hmm. que le waaw waaw Ama dégg li mu wax lamb la ku yóbboo tey si parce que gars yaa ngi wax ñu naan 1-0 ñu naan 2-0 ki ma laaj ne dafa pratiquer lamb xam lamb xam suuru lamb luy lamb mel mu ne na si gars yi Ama na si gars yi wax la wax nag waaw jë ndeysaan ma wax rek ni dimanche 6 janvier fii ci Iba Mar Diop muy première journée euh, Serigne Modou Niang ndeysaan grand combat bi dox ci diggante Ndiaga Dollé ak Ibou Napa numéro 2 Ndiaga Dollé moo xees moo ngem moo ngem weex moo féete suñu ndey joor arbitre laaj leen ndax pare nañ nee nañ waaw arbitre sifflé na Ndiaga Dollé moo toj noonu moo toj nen noonu Fatim combat bu gaaw la combat bi prix benn jàppoo doon waaw waaw mel na Ibou Ndapa numéro 2 dafa bëgg a dox ci kaw waaw bi ñu ngi leewantoo gauche ñu ngi wërwërloo Fatim. ñu ngi Ibou Ndapha wàcc na. ah wàcc na ba tolloog moom Fatim bëri njool ak ndaama loolu la quoi. pourtant pourtant njaga njaga doole njoo gàttu na. non gàttu gàttu mais kii moo sut. waaw kii ah, ah. ragal naa combat du yàgg. du yàgg. waaw benn jàpp lay doon. waaw Ibou Ndapa numéro 2 nee na ko taxawal. waaw eh Fatim xeex xeex bi commencé na Fatim. ah Ndiaga Dolé door na Ndiaga Dolé jàpp na yàlla bu kaw am yàlla bu kaw am. waaw loolu moo arrangé Ndiaga Ndiaga jàppante Fatim xeex door mu daanu sax Fatim mën na si am mu. door mu daanu Ndiaga Dolé day daanu. day door mu daanu. waaw jaajal na ko la amu amul ko jaw jaw eh Fatim Ibou Ndapa Ndiaga Dolé Ibou door mu daanu dana am door mu daanu dana am door mu daanu dana am lu ay Ibou taxawatul Ibou Ndapa na arro mais Ibou Ndapa kawo debu la waaw na arro Fatim Fatim Ndiaga na arro Fatim Diaw dem na àndaloo. waaw seen xeex bi xeex bi metti na te jaar. ndeysaan Ndiaga Dollé ngi noonu dem na ardo waaye Ibou Ndapha kaawa dabu moom la def ñu naan ko ca Ibou Ndapha numéro 2 kaawa dabu moom la def laa ilaha illallah ndeysaan Pape Diagne Seras nga koy jox ndox. kenn du moom Pape Diagne Seras Pape Diagne Seras kenn du moom Ndeysaan arbitre sifle waat na bëgg. Arbitre sifle waat na Fatim. Fatim arbitre soufflé waat na Fatim ñu ngi léewtoo waaw Ndiaga Dolé moo ngémboo ngémb lu weex li Fatim Ibou Senghor 2 moo ngémboo ngémb lebos bi waaw Fatim ñu ngi léewtoo fi ñu toll nag nee nañu tekk ndax xam nga sànq li ñu kenn ku ne fi ñu toll nii nag tënk xamante nañ ku ne xamante sa morom lu muy saf Fatim waaw ku xam ne lu muy saf Fatim ba Fatim Ndiaga ngi nàcc ba léegi Fatim. ñu nàcc kay. ndeysaan. Saabu yaram day tàng. Bala ndeysaan arbitre sifflé waat na da wax ni bii mooy troisième round Ibou Ndapha numéro 2 ndeysaan bu écrit kay baax Ndiaga Dolé écrit Ndiaga Sarr ndeysaan ñaari mbëri nag dañoo tolloo Ndiaga Dolé Ibou Ndapha numéro 2 man damay wax rek ni xeex leen te bàyyi bëre bi Ndiaga Dolé Ibou Ndapha numéro 2 door mu daanu da koy door mu daanu non da door mu daanu da door mu daanu waaw naccaat na naccaat na ardo naccaat na ardo ardo non non non Ibou Ndapa numéro 2 ak saay saay la mi koy mbëllee saay saay la mi ngi koy mbëllee eh, mi koy mbëllee bëgg Fallou arbitre sifflé waat. waaw Fatim arbitre na mais ba léegi Fatim gémmiñ gaa ngi naaj. mi ngi naaj xam nga nag ak tàngoor bi seen tàngoor ah, te ki nga xam ne moom mooy Ibou Ndapa numéro 2 saay saay la da koy dóor da ko ciy delloowaat da day am day am da koy dóor kay ay njaga buñ la dóor daan la waay. ma ne ko Ndiaga Dollé buñ la door bu jàppee rek lamb ji jeex Fatim Fatim ragal Ndiaga bu jàppee rek lamb ji jeex Fatim oh Fatim ñu bëre waay waay bàyyil ñu bëre waay ah. mu ngi naa caar buur doole sonn na buur géwël sonn na daa laaj avance. danga dafa la choix dina dellu. waaw mën na ñàkk a dellu mbir mi bëri ji Babacar. boo mu bëree ji moo ko lekk. mbir mi demee noonu. bu bëree. day bëree lekk. dellu nag jaga. am na lu solo. yow rek lu solo. sama nee na kenn du ko tas day bëree. waa avertissement jox nañ ko jaga doole. bi da koy lijjanti non da koy door bu daanu mën na ci am. waaw moom da koy lijjanti fuñ waaw ndax ki nga xam ne boo gënee xool nii. ah Ibou Ndapa non moo gën a taxaw. waaw moo taxaw quoi. te Ibou Ndapa dootul sangoo xeex bi moom lay. non non ñoo ngi léewtoo Ibou Ndapa numéro 2 Ndiaga Dolé waaw songoo nañ songoo nañu ah Ndiaga Dolé koy takk Fatim Ndiaga kee xeex bee ko arrangé woon. mais waa jàpp bi nag kee daf ko waral daw Fatim parce que tey bu ñu jàppee kee moo ëpp avantage. Ndiaga waaw waaw mais nañ rek lamb ji waaw ndax doole jël na ko. Ndiaga jël na ko. laa ilaha illallah. Ndiaga jël. <laughs> arbitre sifflé waat na ndeysaan Ibou Ndapa numéro 2 Ndiaga Dolé ndeysaan ngi ni teg lamb jaa ngi ni teg ndeysaan daanu Ndiaga ngay fay waaye dalu jàppaat <laughs> ay njaga waay non non Ibou Ndapa numéro saay saay la non Ibou Ndapa numéro 2 saay saay la Ibou Ndapa numéro 2 jàpp na ba mu dëgër Ibou Ndapa numéro 2 jàpp na Ndiaga benn loxo ma dana ko dana ko daan ko daan ko daan ko gàccey door gàccey daan faj ko gàccey door gàccey daan faj ko Ibou Ndiaga Dollé daan na Ibou loolooy taf daal taf rek la wax. incha allah loolu. xale bi ma jaar ko doole dama ko.